Sonko mooy jomaay jomaay mooy Sonko ñun ñaar lañu yor ñaar ñii ñoo ñuy jiite par force doole mbaam ku ko bëgg ku ko bañ ku ko bañ yanu sa yaay yóbbu ko kii nu mu tuddati Gambie wala nga yanu sa baay yóbbu ko Mauritanie ñaar ñi ñoo ñuy jiite ku ko bañ rek yanu sa baay ak sa yaay xool Gambie googu soriwul nga dugal leen Gambie amul benn problème kenn doon a dàqee ku bañ Sonko jomaay jiite la yanu sa baay dugal ko Mauritanie wala Mali à côté la problème ay dëkk la ñaan ñoo ñu wër ku bañ sa bay <laughs> jomaay songo jité la duggal ko Mauritanie à deux à deux pas nga dugal ko euh, guiné wala Gambie <laughs> ñun oh, ñu continuer duñ ko sax yi ñun dañuy continuer de toute façon ku ko bañ rek jël sa bay duggal ko Gambie wala Mauritanie wala guiné on continuer ko combat ñun ñu ngi dé jomaay songo ñoo ñu jité par la force dole mbam force avant dara li xeeñ mi ngi neex بولين نتلا كوي كوي خم كوي نتدخين تخم لي لي أول